assemblée dañoo di je veux pas être là à critiquer mes collègues <laughs> députés mais dañu ne premier ministre amatul dañoo jël parti bi nga xam ne ça concerne le premier ministre ci règlement intérieur ñu génne ko c'est normal. tout à fait mais suñ delloosee premier ministre. dañ ko war a delloo yow da ngaa war a delluwaat ci règlement intérieur nga mettre ko à jour. tout à fait ñu ko Ousmane Sonko jekku leen on est en politique jekku na leen pa nee na parrainage sama DPG mais du ma ñëw ah lu tax ñu doo ñëw constitution bi ni mu ne waaw mais parce que yéen prévoir leen bu ne me pas. Mm-hmm. kooku warut a am coow. warul yaa xayti. bilaay warul am coow. dem leen ngeen changer réglement intérieur. aussi seen ko sax premier ministre bi ñëw def discours am mu jeex tàkk. mu jeex. mais ku ci war a wax dina ci wax ku ci war a wax dina ci wax. <laughs> ku xam wax ci ku xamul wax ci. xam wax ci ku am Sénégal a ngoog nee naa leen euh, les chirurgiens cardiaques ñi nga xam ne ñooy xotti xol di ko ñëwaat di ko defar. dina gis benn waay fële boo xam ne ville vilebrequin. mooy spécialiste dina wax ci waa ji ni muy xottee xol. <laughs> ki xotti xol bi dina dem fekk naka ne ko si mille brequet bi alors c'est un problème euh, loolu mooy ma xam nga bu ma nee nanu soppi suñu affaire ci yooyu lay wax xam nga par exemple problème bi am entre yéen presse ak gouvernement bi alors. foofu aussi coow lu bare bare bare bare am ci jàppoon naa ne mën na ñàkk parce que bu dee waaw yéen am ngeen i bor ñi am bor ne nañ way ñun am nañ bor ñii ne fay leen gars yi ne waaw mais ni ngeen bëggee nu fayee ko may mënuñu ko kon kay toog leen wax jeex na tàkk àddina bi boo ba ba mu àddina bi ba àddina bi daj diggante créancier ak débiteur. waxtaan te waxtaan ba jubóo na. fa lay mujjee da nga xool moratoire bi noo koy gérer. <laughs> ah mais grand place bu ne. naanukaayu attaaye bu ne. di salon bu ne. loolu ko fa wax. nit ñi di lay Sénégalais yi tamit. dégg nga wax. te fi ñu mujjee fa ñu war a tàmbalee mujjee. fa tàmbalee bu jeex tàkk. jeex na de waxtaan rek. Ah, enfin foofu. waxtaan rek. <laughs> assemblée bi daal yaakaar naa rek ñu parce que fa lañ yaa ngi convoqué ñu ngi dinañ changer règlement. ba tey fa la ñu waroon tàmbalee rek Ousmane Sonko ñëw def di mu jeex ñu jàll. fa la ñu waroon tàmbalee.